Vito. Vito, na vamos. waaw. ak càmbar. waaw.

France. waaw ñu ne la. waa Lutte TV ñëw. Thank you.

Thank you.

Boobu laa la que bi ñu génn ah. yàlla toogal combat ba mujjul ànd tey ñu ñëw fekk la fi ana tey loo yëg bi nga ñu woo tey sax mbokk yi bi génnaat waaw jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall waaw di bëggee Baye Fall yëpp waaw di bëggee Baye Fall yi ñëw fii nag dawal ko du sereer yi gars yi gis nga tey jii nii ku ci nekk man ma la sama waay mun naa la wax sa tur ak sa sant xam wax sa gaale xam sa gaale ñoom ñëpp fii géejawaay la a ah, xam nga waa jàmm gën ñëpp a ngi fi kon ndeysaan maam lii rek dafa rëy di bëggee dawal ko tu sere di bu baax a baax a baax di bëggee sama booy nekk si koso man comme da waroon ñaan yàlla sama gars yi nekk si koso ñëpp ful fekkee sama combat bi sama grand combat mais maa ngi bëggee dawal ko tu sere di bu baax a baax ah di bëggee Baye Fall au moins seen fay lii yombul parce que Serigne fan yi rek defoon naa fi open presse defaat ñi ñu wuy si ma te yëgalu ma ko kenn statut rek laay dugal di ko gis di ñëw di bëggee waa Diamaguène bu baax di bëggee Zoka bu baax suma doomu yaay xam di bëggee Sita Elzo gars yi waa Diamaguène ñoom Abdou Seck dama kontaan parce que nga xewle ñëpp jógee fu sori taal machine yi kon maa ngi bëggee gars yëpp waa dool ko di saret yëpp maa ngi bëggee sama gars yi mafia bi waaw Moussa ku nekk xam ni lii di open press du caaxaan pour nga def ko du caaxaan defar nga ko yàgg sa ay morom yi nga xamante ni yéen a ñoom ñu yow nga def lan moo waral tey nga defaat li nga xamante ni mooy open press. waaw maanaam loolu. waaw maanaam loolu sant la. da nga def open press même pas un mois sa lambu yàqu ñu waat ko xam nga ñu defaat waaw maanaam lii damay fësal ne rek Bou Siteu maanaam am na jàppale. parce que lii xalaatuma woon sax naan damay repor gis nga combat nu ma koy reprendre xam nga du ma jël sama xaalis naan maa ngi koy defaat si open sax dinaa ko si def mais yoru aw ma ndax parce que gis nga. waaw mais damay sant buuse bu baax démb 300000 la ma yónnee na ma defal open press waaw maa ngi sant bu baax buuse lii amee rek yàlla ak moom la barki Seydina mu xamee ndax gis na waaw gars yi ma seetaan te waruñu ma seetaan barki ku si woo doo jël ndax lan lamb ju yàqoon nga jàppoon ci mais maa ngi sant gars yëpp asan mënu ma sax maa la sama waay woowaat ni di ko ñaan nan ko alma maa ngi damay waajaa dama rus ndax combat bi autorité moom jàppale woon waaw mais buuse maa ngi koy bu baax a baax a baax waaw lii bu amee rek si loxo buusa la di ko bu baax avant tout balaa ñuy dem sa adversaire na tey looy wax sa mbokku mbër yi nga xamante ni dégg nañ ñu carrément combat bi du ñu bëre ñu delloo li nga xamante ni mooy avance waaw soo soo soo soo gisee lu mel noonu maanaam lambu lañu wax sport la gis nga nit am na sa mbokk mbër bu ma doon dégg tapé benn tapé bu génn naan suñ ma dooleel 500000 du ma bëre maa leen jaay fu affaire tapé yooyu man maa ngi nii joxuñu ma dara utile jàppale man dama am jàppale waaw dégg naa la nga naan buusi dañ ko jox xaalis suuf mais waxoo lu am waaw maanaam nit wooy wax da ngay wax si doomu aadama te ma si réseaux sociaux mm. xam adduna di la dégg sa jabar di la dégg say doom ngay wax loo xam te ni maîtriser woo ko nee na waa rente Dakar ñu maa jox xaalis te amul waa na bàyyi loolu dégg naa ko mu naan du bëre na nga ñëw bëre ma teg la lu met tappe nga doo dërëm doo ibu yaay ndeer lu ah. waral bu Siteu bàyyi feebar yëpp taamu lii di ndoxum Siteu maanaam comme lan moo waral nga non ndoxum si kii glace la moom lañ toj si géew gi sànq yaa ngi gis lii glace la du ndoxum xaw ma loolu Ndiaye glace la glace la dama koy tëj mu tas te bis bu combat billaay la diis teg ko lu mett ragal la bu si daba ne ko baax daal sa ay mbokk wër la moo tax nga taxaw fii di osé naan Malick Ndiaye glace la non moo loolu man dama am jàppale parce que dama am jàppale léegi di sant alaaji naar bu baax waaw alaaj naar maa ngi koy sant bu baax dama man nit ñi seetaan nuñ ma sama waa koñ xam nga gars yi seetaan nuñ ma ñu ngi may jàppale ku ci mel ne Alioune Sall Junior xaalis bëri la ma may waaw Alioune Sall Junior xaalis bëri la ma may euh, tey bu si ku nekk xam ne mbaru jël kat nga da ngay jël euh, sa adversaire ku nekk xam ne daa mën a tànk day téeq tey bu si arbitre bi ñuy prib loo fas yéene def sa adversaire waaw nu na waaj ndax instant naa fi open presse defoon naa fi open presse wax kon lii maanaam dañuy ñaan yàlla la combat bi 4 jours moo si des nañu yàlla ñaan yàlla ñu egg aron nasan ba le 10 na ñëpp xippi seen buntu xool naa sama plateau invité naa Malick Ndiaye ngeen plateau am solo nee nga ma sëriñ combat bi xam ni dama am jàppale combat bi xam ni naa dem fii ci Fara ay ñoom baylal boogi ay Koumpentoum jëli sama ay affaire ana affaire yooyu tey bu sid indi ko wala indi ko waaw loolu noonu yëpp appareil loolu yëpp maanaam ñëwul appareil la mais pourtant sa xel supporter ñoom ñoom ñoom xam nañu si si ay ndam laa jógee mais ñoom xam nañu Bou Siteu dafa am lu mu bëgg man dama a jëndal sama yaay kër jëndal sama papa kër man instant si loolu loolu boo nekk sama bopp mais nekk fii ma la sama waay di topp si yoo xamante ni ay maal man kaw bëgguma sax di wax ci moom man dama am ah, daa am fu ma teg sama bët te dafa am fu ma bëgg a egg waaw dama bëgg a jëndal sama yaay kër jëndal sama papa kër waaw maanaam si man loolu laay rêve te moo la sama waay du ay maal njaay ñoo may sama yoon man dama am fu ma teg sama bët parce que coow ngi dégg ay wax yu nekk waaw Bou Siteu du entraîné di wax te mais combat loolu mooy confirmation bi. nee na yéen boo ko xamul da nga laaj sa ay mag ku ni ñaas ñaas nga laaj ko mu la kan mooy Malick Ndiaye 37 fu. waaw mais moom presque lépp ba muy daan ñaas ñaas ak léegi su may wax 9 la si tey mais imagine toi 9 ans ak tey jii ma màgg prouvé dam bay bëre ak Malick Ndiaye fu kon am na fu ma teg sama tànk loolu day dem de man du ma waaw man damay arbitre ne pii mu taxaw di ma déglu wala mu taxaw di ma xaar. kenn moo nekk sa ginnaaw ñu nekk sama ginnaaw dafa bëri ku yi ku ci mel ni Omar Sow ak Pape Malick Diop jeune de milliardaire Abdou Aziz Ala Ndiaye xam nga ñoom Sora Badou Ala Ndiaye Aziz xam nga Masata waaw ñoom Matar Diop maa ngi koy sant bu baax a baax a baax di bëggee tamit Omar Baas waaw maa koy sant bu baax gis naa xaalis bu ma jàppale si combat di ko nuyu bu baax di nuyu waa Gala ku ci ñoom As ñoom Cheikh gars yi nekk kër Omar Baas xam nga nekk nit ku baax waaw ah, Omar Baas maa ngi koy sant bu baax combat bi combat Omar Baas la waaw. Hmm. combat bi ku ko xam ah, xam ni euh, combat capital la si yow ndax da nga jógee si lamb ju am solo sa diggante yaa kii di bu ndaw nga daan ko jël bu rëy tey nga ñëw war dugg Pikine combat bi war a nekk 100 pour cent Pikine ak 100 pour cent Géejawaay tey ngay def open press bu Siteu gisoo yenn si tetu Géejawaay nan lay def si yow. waaw maanaam soo gisee lu mel noonu maanaam Malick Ndiaye moom war na sax ruus moom moom gis na combat bi xoolal xoolal waa Pikine nu ñuy xaaree combat bi si moom kon moom kon moom xanaa moom moom. kon moom waa Pikine yaakaaruñ ko xanaa mais yaa waa dama na am gëm-gëm na am gëm-gëm ñëw waaj barke Serigne Touba Mbacké ma jàpp ko daan ko. absence yéen a tëddi si géejewaay laa waral lan moo waral seen absence fii parce que fii fi gis ku ni Mathieu Pereira mu ñëw taxaw la tey lan moo waral yeneen mbër yu mag yi gisuñu moo tax sànq Mathieu dugg seen daf may yéemal tax ndax parce que woowu ma ko téléphone ko damay dem open press man damay bind SDT rek foofu te parce que man boo xoolee man su ma dugalee stade damay am ay 900 vies te xam nga yow li ma lay wax ni yombul waaw man su ma dugalee stade 900 vies laay am xam nga kon loolu yombul moo tax xam nga waaw maanaam du ay Malick Ndiaye du pour réeré barki Serigne Touba combat waa Guédiawaye dañ maa yónni te yàqamtu wuñ ma xaw moom dara dañ kaa yónni yàqamtu wuñ ma bu sito bu sito bu sito ñu gis la euh, eh, sa turandoo li mu daan def si li mu gis ni sa turandoo sito lu mu daan def si làmb tey loolu ñu gis tey nga def nga takk ñaari fulaar sa loxo ba pare yore li nga xamante ni mooy kaamil lan moo waral kaamil bu sito waaw soo gisee fulaar bi boo xoolee li ma sol nga xam tey daa fu ma génn bu la xam nga. waaw man kaamil la. non lii kaamil la waaw kaamil bi li ko waral muy maanaam nit ku baax rek nit koo xam ndeysaan nit ku baax la tey ma dem këram ne ko dama ko yëgal ko sama bis bëggul sax mooy tudd turam si réseaux sociaux. waaw mais maa ngi baax kaamil baa ngi nii laa téye ni ma koy waxee. ne ko say feemu bopp la rek. ah li xasida la soo gisee lii muy masaalikul jinaan lañ si def xam nga lii masaalikul jinaan la lii ay ñaan la xam nga lii maanaam képp ku ko gis rek da ngay gudd fan ñu ngi la téere bu yëg si téere bi gaa yi xool ah téere bi yëkkati ko gaa yi xool ko yëkkati non bu damaa dem ba Diofior Abdou Ndama Thiam maa ngi sant bu baax waaw loolu am na loo xam jarul suñu koy wone si benn sëri Fadal waaw maanaam mooy loolu kan wax lépp bu tey yaa sa koñ Euh, say mbokk génn sa say supporters génn nañu ana tey loo wax say supporters si combat bi ñu foo toll si mobilisation bi. waaw samay supporters li a ngi waaj wala waajoo leen sax ay reelaa leen def te parce que boo xam te ni tey si deux ans si tey ñuy waaj combat boo xam te ne maa njaay dafa dafa ay gaaf xool maa njaay dama jël rek am commencé am ay torof torof. lii di pare lii di yàq xam nga mooy loolu kooku moo tax mooy dama ñaan yàlla taxali kooku moom mu jeex. mais loolu est-ce que ndogal rek bu. comme ndogal bu demee est-ce que ndogal rek. non du ndogal li ma la wax fu ma ko teg li ma la wax fu ma ko teg tey maanaam wax ji du bëri waaw man dama nekk ci yoon ku ci mel ni Daouda Mbow. Daouda Mbow maa ngi koy sant bu baax keroog almadi la ma yóbbu këram xam nga may ma xaalis bu bëri waaw Daouda Mbow maa lay sant bu international jour marché la fu ma dee ba ay jour marché ñu may bàyyi xel xam nga nekk nit ku baax xam nga di ko bëggee di bëggee tamit maam Cheikh Sall parcelle bi bëggee ñoom MC gars waa Touba ñoom Lamine xam nga di leen ñaanal seen final bi dañoo amoon match ñoom ñoo jël ko maa ngi bëggee waa Touba bu baax ñoom maa Abdou bu sunu ñoo woo bi ak loo wax waa rente DKR ñoo woo si bi ak loo wax waa rente rek bi nga xamante ni ñoo la tëggal waaw waa rente DKR lu ma leen wax rek mooy maanaam bu Siteu da leen a yërëm parce que sa premier na mu demee nii xam nga man ñoom dama leen a yërëm ñoom dama leen di ñaanal seen bis bi réussir affaire yëpp jàll waa Rent Dakar ku ci mel ni Alain ak moom su ma su ma su ma neexee sax du ma ko tudd te parce que Sénégal ñëpp xam nañ sama diggante ak Pape Sarr mais wax ni combat bi na si nootur te parce ki may bëreel ñoom ñoo bokk gox te parce que bëgguma ñuy wax si deram bi loo xamante ne nii te parce que Pape Sarr dama ko bëggal kon waruma dégg Malick Ndiaye di génn bi bul toogoo di sax naan ay bu Siteu nii yàlla na dóor Malick Ndiaye mu daanu wax woo dafa ma métti te am na ñoo xam dem dem ñu yaakaar moo te man dama bëgg Pape Sarr na yem nag kii Malick Ndiaye dafa faral woote bu wooteel waaw woote bi di sant autorité yi ñu ma jàppale ku si mel ni Modou Faye maa ngi bu baax Modou Faye may na ma xaalis bu bëri xam nga maa ngi koy sant bu Modou ñu war a doon biir Guédiawaye te parce que ñoom si social rek la ñuy dox te xam nga du du seen xaalis ñoom ñooy liggéeyal seen bopp xam nga Modou Faye baax di sant tamit ku si mel ne Omar Baas Momo Dia Momo Dia maa ngi koy sant bu baax xaalis bëri la mu may ak ñoom Pape Touven Abdou Sall xam ku si mel ni waa Aliou Sall Junior waaw sànq moom laa doon Ndiaye maa koy sant bu baax ñoom Ibou Moroon ak gars yi Thie Yacine bi xam nga waa Savastoul Lavas ku si mel ni Ceki Ceki maa ngi koy bëggee bu baax kooku Baye Fall la parce que Seydina xam ne di bëggee mafia bi yëpp waaw ku si bëggee yangu yangu tey maa ngi koy sant xam nga bëggee waa diaspora bu baax a baax daal di jàpp ci combat bi waaw mafia ay ay see yëpp man géejawaay su may bëre ay see yëpp ay gën dooleel ma kon bu si tam maanaam moom fépp la far waaw te parce que géejawaay yaatu di bëggee waa daaru xan bu baax ku ci mel ne Abdou Abdou maa ngi koy sant bu baax a baax Abdou maa ngi koy bëggee nekk ba koñ jiwoo daaru xan ab dégg naa Balla Gaye moo yóbbu Casamance bu bëggee tamit Mandiaye Ngom Mandiaye Ngom maa ngi lay woo ci combat bi bolog laa soxla su mel ni tamit kii Bara Gueye maa ngi koy woo ci combat waa dëkkandoo tey maa ngi ay see yëpp di woo ay see yëpp dina wax nañ ñëw soutenir seen doom jàppale ma di bëggee tamit Serigne sam xarit Serigne tey laa demoon gaale maak Abdallah mooy ma xaas bu bëri kon Serigne maa lay sant bu baax a baax di bëggee jaay ko di yàpp waa Mass Ndiarème waaw maanaam su ma limee damay jub su mel ni Baba Galle Baba Galle maa ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax waaw di bëggee tamit journaliste yi ku si mel ne waa 4appuis ah 4appuis TV gars yi xam nga waa Guédiawaye Info xam nga mooy loolu gars yi dañ siy waa wasaare xam waa Thiey Dakar suma doomu yaay waaw di la bëggee bu baax yow suma nit nga ku ci maa ngi koy sant di bëggee Bou Siteu mënul lim man ñi may jàppale ñoo bëri waaw ku ci mel ne Daouda maa ngi koy bëggee bu baax international di bëggee tamit kii Cheikhou Kouyaté Cheikh Kouyaté maa ngi koy sant baax di nuyu jabaram Zara di bëggee tamit doomam bi Fatou Mata waaw maa ngi koy bëggee bu baax bëggee Fatou